mbokki internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm aw laaj ñu samp ñeel cherte gi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ci Sénégal loolee nekk loo xam ne jaaxal nañu bëree bëri état du Sénégal nag di ko jéem a expliquer jaarale ko ci li nga xam ne moom mooy crise bi am ci àdduna bi rawatina bi amee fële ca Ukraine ak Russie. loolee nag dëgg la waaye il faut ñu xam ni Sénégal di waral ñuy dund jafe-jafe yi ñu toll nii c'est tout simplement parce que dañoo amul souveraineté ci lu jëm ci suñu wàllum lekk alimentation amuñu ci souveraineté souveraineté boo ko déggee mooy li nga xam ne yow moom ngay jëriñoo amoo ci ab liberté ndax dañ la cee tënk ndax keneen moo la koy fournir maanaam moo la koy jox yow nga dog ko mën a jëriñoo loolee nag Sénégal tant que juguñu ci duñu jug ci di am ay prix yoo xam ne dañuy xëy bés rek mu yokk yokk boo xam ni day jaaxal ñëpp loole nag kenn moo ci mën a dox teg ci politique yu ama am solo mooy état du Sénégal rawatina le président de la République et son gouvernement Sénégal jot na tey depuis indépendance 1960 ñu am suñu souveraineté ci wàllu web ci politique ci économie ak lépp loo xam ne rek dafa làmboo réew mi làmboo li kay doxal te ñi nga xam ne ñoo di gouvernant yi maanaam état du Sénégal ak guvernement bi nañ ci def ay jéego yu ama am solo député yi itam nekk ci pencum ndawi réew ma ku ci nekk na ci def lalawaar bu ko defee ñëpp dañuy àndandoo xeex liggéey nekk benn ngir Sénégal mën a jëm ca kanam ngir Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund saa su nekk ñu mën cee génn ndax jot na tey ñu am suñu indépendance ci côté ñu mën a atteindre loolu mooy que képp kuy sénégalais nga nekk citoyen modèle tàmbalee ko ci président de la république ba ci ki gën a ndaw loolee dong moo mën a tax Sénégal mën a jëm kanam loolee dong moo mën a tax lépp réew mi ñu mën koo jaarale ci yoon ba ku ci nekk mën ciy gis sa bopp. mbokki internet yi safoo sitaan AGT news abonné leen ci suñu chaine saa su ne ngeen di amee xibaar yu wér te wóor.